salaamaaleykum rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ñun la waa kër Sissoko Habbatu sawda tey ñu ngi leen di présenter encore suñu produit yi nga xamante ne secret de femme la tudd lépp li nga xamante ne luy neexal biir kër la li nga xamante ne day tax alaaji yi kontaan li nga xamante ne day tax kër yi di neex xale yi di xàppi doore bañ a am yuuxu bañ a am xeex bañ a am ci biir kër gi ñuy njëkkee ci bi nga xamante ne mooy poudre de l'âme nga xamante ne Habbatu Sauda kese moo ko am day dindi infection perte blanche allergie képp ki nga xamante ne rek muy goor muy jigéen rek ñëpp mën nañ ko utiliser képp ku am infection mën nga ko utiliser comme hémorroïde mën nga ko utiliser ku am perte blanche aussi mën nga ko utiliser képp ki nga xamante ne da nga am lenn lu la jaxal ci sa kanam hygiène 100 pour cent utiliser poudre de l'âne moy am nga ko do am dara lu la jaxal do am dara lo xamante lu la tital la ci sa adina buñ fa jógee aussi ñu leen di présenter li nga xamante ne mooy Zeynab Karité Zeynab Karité nag si sa xabat sawda donc moo ko am 100 cent bio 100 cent naturel amul benn produit chimique amul effet secondaire boo ko jëndee ba pare ñu wax la moo d'emploi bi nu muy demee ak ni nga koy utiliser nan lay demee képp ku bëgg nag sa alaaji toog mbaa kër gi gën a neex da ngay doxantu ndànk ci si Sissoko xabatu sawda kër gi neex xale am jàmm mag am jàmm buñ fa jógee ba tey ñu leen di publicité li nga xamante ne aussi mooy Zeynab huile nga xamante ne da lay lubrifier en même temps boo bëggee am bànneex da nga koy am boo bëggee sentir dara danga koy am doxantu leen fi daal muy góor muy jigéen bëgg nañ ñëpp doxantu ñëw fii ci foire bi parce que dañuy promo bagage yëpp wàññi nañ ko prix abordable na ñëpp mën nañ ci am seen wërsëg bu neexee yàlla suñu borom buñ fa jógee ñu ñëwaat encore présenté leen suñu bi nga xamante ne mooy meel mante bi meel mante bi si soo xabat sawda kese moo ko am fii la fii la mburu mi xoyom xoyomee képp ku bëgg a téye sa alaaji bëgg sa kër neex bëgg am jàmm xale yi am jàmm kër gi am jàmm da ngay doxantu ndànk ci si soxo xabat sawda sa aaja faju kër gi neex foofu toj asalaamaaleykum rahmatullah